wa mbooloom daayira muqaddamatul xidma ci njiitam sëriñ Afiya Busa al imaam ñoo yëkkati kadduy nuyoo ak kadduy ziyaar ak kadduy mbégte ci jéego yi nga jég séqi ba agsi ci barab bii fekk si fi liggéey bi di ko teg ci sa loxo nga tegal ñu ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo la tànn def la jëwriñam ngay jëwriñ ju mat jëwriñ daje bii nag xëy na waxtu wi moo gàtt ak it doon loo xam ne liggéey bi tënk nañu ba mu xat rawatina ci sag wàll moo tax mu demee nii waaye bëggoon nañ mu gën a yaatoo nii gannaaw waxtu wi xat na nag duñ def lu dul jël kàddu gi jébbal la ko bala ñu la koo jébbal nag dañ la xamal ne daayira Muxaddamatul Xidma liggéey bi nga xam ne moom la leen sëriñ bi santoon teg ko ci seen loos te nga àndoon kook ñoom zahir ak baatin biir ak bitti dara mosoo ko cee ñëblu rawatina ci màggal gii mbooleem yi nga xam ne ay engagement yuñ jëloon la ci jumaa ji ak li ko wër ci sàmm worma ji ak fi ñu toll ci wàllu mbas mi ak liñ ci doon moytu lépp ba taxoon ñu mobiliser mbooloo mu toll nii toll ci juróomi téeméeri jóge ci gox yu fasantikoo ci Sénégal ñii nekk Touba ñii nekk Ndakaaru ñii nekk Louga ñii nekk Euh, Ngoy barab bu ne nit jóge fa ñëw te ñoom ñëpp ñuy membre daayira Muxaddamatul Xidma ngir jàpp ci liggéey bi ñu ngi lay xamal ne liggéey boobu def nañ ci suñu kem kàttan ba mën nañ ne buñ ne woon téeméer ci engagement la juróom-ñeent fukk yaak juróom-ñeent yëpp matal nañ ko ne xam naa ne sax cent pour cent kenn mënu ko am jafe na waaye def nañ ci li li ëpp ba nga xam ne mboolem ñi nga xam ne màggal si woon nañ seede nañ loolu bi mbas mi duggee daayira mu xadamatul xidma sëñ bi joxoon ko ndigal ngir muy saytu jumaa ji sàmm ko féete fii di fi dundal waxtu yu juróom loole noonee ñu ko doon defee ci biir màggal gi itam taxawaay bu mel noonu lañu def bunt bu fi nit jaar balaa dugg dana takk masque dana raxasu dana def mbooleem yi nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ war a wàccoon ngir mën a mucc ci feebar bi loola nag buñ ko defee ba agsi fii te ngay jëwriñu Cheikh Mouhamadoul Mountakha di kenn ci daayira Muxaddamatul Xidma ni ma ko waxee woon ci njëlbeen gi ñu ko tàmbalee ba léegi lépp lu ñu nekk ànd nga kook ñun ci sa xel ci sa xalaat ci sa jot ci sa poos lépp dara bàyyi woo dara lii rek firnde la ci ndax xam nañ sa sa ñàkk jot xam nañ fi nga toll ci xataay ak jeexitalu màggal gi teewul nga bàyyi lépp xam ne lii ci liggéey bi sëriñ bi la bokk tax nga ñëw ngir bëgg ñaanal mbooloo mi yeewi leen loola am nañ ci mbégte mu kawe suñu jortu kon ñi ngi yëkkati si kàdduy cant ci turu sëriñ Afia mii di njiit li ak mbooleem ku bokk ci daara Muxaddamatul Xidma di ko teg ci sa loxo ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di la ñaanal yan bii nga yenu yal na woyof toyyu yal na nga ci dajee ngërëmul sëriñ Tuubaa mi ngay sàkku zahir ak baatin yal na la suñ borom kattanal wéral la ndax ndamul murid yi nga ndamul lislaam bi yëpp nga ñoo loolu ñu ngi la koy ñaanal di la ko fasal kon nag ñu jël kàddu gi jébbal la ko rek nga ñaanal mbooloo mi sant leen gërëm leen ndax nag ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla guddeeg bëccëg subaak ngoon duñu tayyi duñu sonn koo ci gis mel na ne sax liñ liñ def kattanu sëriñ bi moo sëñ bi moo leen raf kattan ba tax ñu man ko waaye du seen man-manu bopp ndax jàpp nañ ne bu ñu nekkoon ci yeneen i barab bu dul barab bii loola duñu ko man kon nag ñi ngi lay sant bu baax a baax di la ko seereel di la seereel seen njàmbaar ak seen passeef jërëjëf sëriñ bi tout nee mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Khadim moom mi nga xam ne moom lañu ñu jébbal suñu lépp jox ko suñu dund jox ko suñu faatu suñu tay ak suñu ëllëg ñu jox ko ko te tay ëllëg yaakaaruñ fi ku dul Serigne Touba ñoo ngi koy sant bu baax di ko jaajëfal di ko ndokkeel muy moo muy Cheikh Mouhamadoul taxaam mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp yoon wi di ko nuyu di ko ziyaar bu baax di ko ndokkeel lu bari di ko jaajëfal ci coono yi xam nañ coono yi mu yenu ngir murid yi ak njëriñu nit ñëpp ak ngir diina ji yëpp ak lim fi jànkoonteel lépp yim fi jànkoonteel yëpp ak yim ciy jànkoonteel yëpp képp koo xam ne doxuk murit gi ñor na la yaa ngi koy bàyyi xel noonu it la ñuy nuyoo Cheikh Mamadou siir mii di ko sant bu baax te di ko ñaanal di rafet lu itam taxawaayam bu baax taxawaayam mat na sëkk ci liñ teg ci loxoom ndax xam nañ ne baatinu maamam moo ci dugg waaye du jëfi sax doomu aadama simple ba na képp koo xamante ni doxinu yoonu murit yaa ngi koy bàyyi xel yaa ngi koy bàyyi xel moom mii te di ko ñaanal ndax ab sag la ci diina jëpp rawatina ci murit yi ndax tànki dafa rek lay lay jóge te yàlla ngi koy musalandi te mus ci yàq dara yàlla na loolu wéy yàlla bu ko gémiñ dugg liggéey bi yàlla na ko àggale fam ko jëme te mooy ci kanamu Serigne Touba laq ngërëmam mu laqaale suñu ngërëm ñun ñëpp sëriñ bi nag mbooloo maa ngi nii daayira Muxaddamatul Xidma mbooloo la moo xam ne jumaa ji mooy liggéeyam ñu sosoon ko ci jamonoy Serigne Saliou ni nga ko xamee mas ko mas di ko ànd ak ñun ba tey dafa am nag yeneen mbooloo yoo xam ne su màggal gi jotee dañuy ñëw jàppalante ak daayira Muxaddamatul Xidma di ay jàmbaar lool. am na ci ñoo xam ne waxuñu màggal gi sax muy waa daayira Touba Ngoy gi di ilhaamul latiful xabiir ñoom ajjuma ju jot sax dañuy ñëw ñi ci ëpp ña nga ndakaaru waaye dañuy mbooloo moo xam ne ajjuma ju ne ab lim dana fa bàyyi ko di xëy si ci jumaa ji di liggéey si ba ngoon ñu delluwaat du jamonoy di jamonoy tartar di jël ak li muy jafe lépp fu waay fu war a ku ñëw ku ne ñëw moo la gën a lu dul ñëw amatoo benn yitte bu dul ñëw mbooloo mi nga xam ne mooy Moukhaddamatoul Khidma bàyyi koo luga nga xam ne ñoom itam màggal ak yeneen xew-xew yi la ñuy ñëw ñoom buñ dikkee jàpp ci liggéey daayira bi seen taxawaay rafet na lool ànd ak mbooloo mi ñu fi fekk si ndax ñoo leen di jiite ci liggéey bi sëriñ bi daal kon mbooloo maa ngoog def nañ seen kem kattan ngir liggéey Serigne Touba kon ñëw nga nii tey jaajëfal leen kon nag lépp ngoog ci sa bu ñu fi bàyyi ko ku fi bàyyi ko ku ne na tàggoog bàkkaar na aajoom faju tey ëllëg loolu daal mooy sas wi nun nag nun mënuñ suñ bopp mënuñ suñ bopp dara amuñ ci suñ bopp dara lépp dañ koo jébbal sëriñ bi tànk tànnuk sëriñ bi mooy suñu tànn amuñu tànn tey nag ñoo ngi ni ci say loxo yaa fi nekkal sëriñ bi na aaju yëpp faju zahir ak baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nee na sëriñ Afe ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara yaag mboolem waa daara bi nga xam ne yaa nekk ci seen kanam muy muqaddamatul xidma di la sant bu baax di la gërëm gis ci seen taxawaay bu rafet bi ndax taxawaay bi yàgg ngeen ci lool waaye ci weer yi weesu nag yaakaar naa ku leen xamutoon fi mu ne ràññee na leen ndax Cheikh Mouhamadoul Mountakha yi ci yi ci jëm ci jumaa ji yëpp bu agsee xelam da ciy dal ndax wóor na ko ne bu ko xasee teg ci seen loxo lam ca bëgg dana ko ca am kon yi weesu sax moo gënoon a metti waaye teewul bi ngeen ci déggee ndigalam da ngeen koo topp fexe ba nam ko bëggee woon ngeen amee ko ni muy lu jafe-jafe nag mu doonoon lu jafe loo xam ne pësteef ak ngëm ak dëggu ak seere sëriñ bi dong moo ko mën a def ba ci màggal gii nag kenn xalaatutoon ne niñ ko taxawoo nose ko ni mën naa ne waaye ku ko xool wala nga romb fi jàll bay gis jumaa gis niñ ko nose dañuy xam ne sëñ Tuubaa nga ciy njëkk ndax lii yombut ndax ay million nit war a jaar ci benn barab ñëpp nga nos leen tegal leen ay charte ñu war a matale charte ya ak ni mu demee jafe na ca jeexalub liggéey ba kon moom mi nga xam ne ci seen biir la moom seen nee na moom seen biir yéen Serigne Touba la ci Serigne Touba la ci yéem waaye xam na ne doonut lu yomb xelum kese it lijjantiwu ko doole kese it lijjantiwu ko waaye sëñ Tuubaa ci boppam moo leen tànnal boppam liggéey loo leen kon loolu tawfeex ju rëy la kon nee na mi ngi leen di ziyaara bu baax di leen sant bu baax ci taxawaay yëpp ndax matal ngeen ko ci biir ak ci bitti dara desul nee na lu ko yéemoon ci yéen nag ci màggal gii la rawati màggal gi moom ku fi jaar da nga yem sëriñ bi ndax lii moom yombul liggéey bu rëy rëy la te ndigal li kat sëriñ bi ñëpp la ko sant waaye nag niñ ko matale niñ ko motalee kenn dabuñu ci kenn dabuñu ci loolu nag tawfeex la nee na kon nag mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi liggéey bi yàgg lool ndax wóor na ko ne ngërëmu sëriñ bi moom làqu na ci waaye nag na yàgg waaye nag nee na nee loolu am nañ ci yàqin bu wér ndax nee na fii ñu sëriñ bi liggéeyloo mooy léppam te mooy li ko gën a ñor kon nag bu ñu ko tànnalee tànnee fukk sëriñ bi la waaye sëriñ bi moom comme liggéeyloo mooy matal lay tax liggéey ba sotti kon nag nee mi ngi sant bu baax di leen xamal ne sant nañ bu baax Cheikh Mouhamadoul taxa sant na leen waxtu wu ne mi ngi koy seere fu ngeen nekk ak fu ngeen nekkul moo tax lépp lu accepté mu doyloo leen ca te lu mu leen ci def it du ngeen ci ëppal du ngeen ci yéesal te loolu lu jafe la liggéey baa ngi bëgg a yàgg waaye yal na leen yàlla gën a dimbali lépp lenn luñ ci mën a xebet gisu ko ci ci genn fànn du ci wàllu lislaam ji du ci Pastef bi du ci genn fànn te ñi ñu seqal àddina ku fi ñëw da leen di yéemaat yéemaat Serigne Touba yéemaat dëkk bi ndax lu bari ñoo leen ci jiitu ndax luñ xalaat rek ba andi ko fekkoon na ñu xalaat ko ba jiitu leen ca loola nag tawféex la day mel ne tawféexi sëriñ bi la ak gàttandu gum ñu gàttandu ci xalaat yi. ak lépp nee na kon ñi ngi sant bu baax suñu xel sedd na suñu yaakaar gën naa dooleeku kon nag mbooloo mi ci nekk ñépp ni ko sëriñ Afe ñaane boo leen ko dogalee rek mu am ndax fii moom ku fi jóg rek ku fi jëf rekk bu sa Pastef dëggoo la nga bëgg da ko am ndax dafa àgg ci sëriñ bi te jege ko lool jaddul fenn kon ku mu fi dugal rek dalaa tànnal boppam jërë ngeen jëf nee na sëñ Afi ñu ngi ziar bu baax a baax di ziar waa daayira bi yëpp di leen sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah kon fu waay nekk na tàllal fu waay nekk na tàllal te fas fas li mu bëgg wax amiin ale Sidri wa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 داري وثبتا بالهادي الوفي